tay bi ñu ko jëme ci ñu ay bokk jullit ak moroom ni ni yàlla def ay bokk ten war a bokk suñu war a dimbalante ci maanaam tànkante xeex yoon bi yëpp benn xeet la ñoo bokk lépp ñoo bokk lu ñu gëm ñoo bokk lu ñu wet ñoo bokk lu ñu tënk yàlla na ko moom ummatan waahidatan ñoo bokk lu lu ñuy mu muy suñu dugub muy Alxuraan karim jullit fu mën a nekk àdduna sukkandiku am jullit li nga xam mooy terawaay bi gën a wér mooy Alxuraan ba ci topp mooy xadiis seen te loolu lépp lépp ñoo ko loolu moo tax ñu mbooloo yàlla mi ñu bind nag xamal ne yéen julli yëpp ay bopp yi noonu moom ñu ne jaxas bu baax na xaw bàyyi na xaw yi dinañ rafetal suñu bopp te jullit ndax yéen bi salaata moo ko wax booy message ak jullit ci ak coxee la ak yërmande dafa mel ne ak moroom bu jullit daa mel ne mel ne julli bu mooy yàlla bu loxo bi méttee yaram yëpp ko yëg bu tànk yi méttee yaram yëpp ko yëg bët bi méttee yaram yëpp ko yëg lii la jullit ak morom lu dal mooy jullit ba yow yow mi ngi nekk na ba ca màkka ba ca ay néeg ba ca ak li si bi ñëwee ko dal war na laa naqari mel ni yow la dal yàlla mi ñu bind moo ñu digal te njëkk lislaam loolu amu ko boobu naa naa yi yëpp càkk rek ma xamoon ku man xam duma ba ci suñu réew mi ak sama islaam moo nag boole ñëpp yemale leen ñu bokk ñu bët bokkul loola nag war mooy su lu ko yàq dama lu ne loo tax yenn salaat ñu wax ne na ngeen di mooy tàqale ko ndax li leen ñu gën doon danoo tàqale ko ba yàlla alal gi ñun ak moom war nañu bëggante soxante jàppalante loolu par exemple am mëri wut a tulloo moroomam ak jiitam def ko lu loolu tooñ tooñ bi gën a réy la ak jullit pour mbokk ñu ne suñu dara jot mu bégte naa ndox saa boo ko defee xamal ne yàlla kaloo la ko gërëm yow moo koy ndoxal ne suñu borom dana koy ndox ab jullit wut sañ di tooñ di nekk taxal wala kuy nekk laxaay wala nekk faaxay boo xam ne ñaaw ci mu bi da koy feeñal wala mu ñaaw la neex wax nit ku la neex xas ku la wax ku la neex def loolu ak jub jub bu ne noonu yonent bi wax ne li xawlee ci jub mooy nit ki ne da ngay gis sa morom bi nit ab nga nekk di wax kii gis ngeen bëriñ bi bu yow booba aw aw ab pant bu rëy bi sa bët sooy nuyu sa bët boobu waaye laal la nga moom bu la boole nii xam ne dina nekk ba pare fa taxaw nga yow doo gis loola la nekk ñu doon dégg day fekk ku nekk wax loolu la biir loolu mel dina ne ci boppam te bañ na ne ci sa mbokkum biir loo xam ci moom loo tax nga wax ko loo xam ci ñam bu ko borom ko moo tax suñu yaakaar tey ëllëg moo wax ci président bi ne wala tuxin wala tantaxe wala taxu bul doyadal mel na jul sa morom jul bu ko doyal mukk bu ko gëdd mukk bu ko gàññ mukk wala taxaw taxaw mukk ak julit suñ sa mbokku julit bu sa gëdd sa mbokku julit bu la nangi sa mbokku julit bu ko ragaloo ndaga lañ koy def loola day lu rek soo xam ne dafa wàcc yoon rek la dafa fekk yoon te kooku bañul waaye sangal alfata min faxtaay aradmin te làmmiñ tam nga ciy wax lu ñaaw kooku moom sëñ bi la koy teg mel na xaw na lekk kon boobu ñu góorgóorlu ci topp ndigal la te ñu góorgóorlu waa tam ci xam ngeen ne kon yëpp Sénégal taw yi war na fi lool ngir xëccoo réew mi te yaakaar naa léegi li def bëri muy am yoo xam ne bu bare yoo xam ne ñu ngi am dëkk bi si yoo xam ne njëkk yi dëkk bi neexul leen na ne c'est important bu moo tarawal dëkk bi yëngu bu nekk dëkk bi xam def mu ànd woo koy yëpp bu ñuy feeñee ca xamal loolu moo leen fa toogal seen tool bu dëkk yaa ngi dëggal loola di ko yeesal ci sëriñ bi waaye ñu ngi gis ci jamono yi ñu dëkk bi ay yëngu yu bari yoo xam ne daanaka la ñu tere mel ne bis la bi. ñu gis ko ma ay caxal yu tudd xaw ma tudd ko ñii yëpp foo toll noonu ba ci sax sirle di jooy ci mbedd yi waxtu bi ñuy wax suñu sañ yëpp ñu jëlee ci waaye romb na la nga dégg coow la ñu yàq nit ñi julli mel ni loola rek ñoom ci turu meeting bi lañ tere waaye turu am solo li li li bu doon mooy jëngu jëngu yooyu jëngu yooyu jëngu yooyu kon nag ñu ngi fàttaliwaat tër bi ne daf murit ndigal la war a ko nit yi adduna yi nga xam ne ñoo ñëw bi ngir jaxase famille yi jaxase tër bi nan leen moytu bu baax a baax ndax suñu yaakaar tey ëllëg tara na wax lu toll waman yusaarikum huna fi asihim yakun sarikahum alan fi dullihim wajtaniboo xultata haulaai li annaha min aqsal asyaai ñi nga xam ne ñooy yëngu ci adduna di dugg ci ñoom ñi di leen jaxase yàq seen diine yàq seen sëriñ Sëriñ Tuubaa nee na ngeen mujj di leen jaxase ñoom ndax képp ko xam ne lii ñu am ñoom àdduna moo leen tax a jóg moom ñu wut ñun nag ku nekk àdduna nag faaw nga nekk ci loo tax a loo loo defaree sa ëllëg waaye ëllëg bi lay ànd ak ñu ko yàq ëllëg bu ñu bëggee yàq suñu ëllëg yooyu nañ jàng te sëñ bi wax yii ñu ñu dul tedd nga ci ñoom bu ëllëgee bu ñu leen di toroxal yàq ànd ak ñoom moo tax mu ne na muy tere tujaatoon ñoom lakin mudaaratuhum mudaaratuhum qad nudibat kama fi nassin fi aadatin aqabat mën nañu jax dax ko ñu koy tax daal ñu nekk mudaarante ñoom mudaara bu gën a rafet ñëpp ndax mun kenn mun fee nekk lu ma wax waaye nga yem fa nga xam fa nag du nañ ñëpp ko mën loolu tax وحدها إراؤهم بخير ما نحيت مكرها الخلق أو محرما ولم تيق إلا لعالم جميل قد كان ساعة عدالة ولا يمين بما جعلت المسلم قبل تدور يعقل dara muy koo xam ne da ngay doon ma xam ne mag ku maam koo xam ne doo jàng mukk kooku moom mën a jàppal ñoom te du la yàqal dara waaye waaye de sama kaas bi rek boo duggee ci ñoom ñu am bay yow loo xam ne dana la yàqal lu jëm ci yow فالعالم الجائر لا تليق به ومثله الجاهل حين تنفتح koo xam ne xam-xam ca jàng nag kooku jëlu yow ngay jaxasoo nit yi adduna yi waxuma laa ne ko dara dara koo xam ne jàng nga moom kooku moom boo ànd moom xamal ne loolu rek ngay jëlee ci ànd boobu kon nag nañ gën a góorgóorlu xam ne Sëriñ Tuubaa wàcc na li mu waroon wax wax na ko li mu war a jëf jëf na ko li mu war a bind bind na ko ku réer ku ne yaa bëgg réer waaye moom réer ku réer kan xam ne sa kër bii moo ko moom kenn du jàpp da muy jóge Daaru tubaab bii bàyyi na Daaru nag lii ne nit ay xam ne lu bëgg lu mu la digal def waaye kan sa kenn muy ñëw dëkk bi moom dong nekk fi nekk fi ba duñ ko war a fekk kon li mu liggéey liggéey moo xam ne bokkul kenn li bii nag li fi nekkee buñ ko réer bu fekk bi itam li gën a réy ci mooy ak sabtaab fex na soxla yi booba ginnaaw nga gannaaw bi waaye taxut mu bàyyi li ñu doon def tubaab dañ dem daa continuer toog ñu jàppal ko daal kon kon dëkk bi jor na ko li taxoon nga koy liggéey mu mu ñëw tax mu jëf di ko di ko xëy loolu la ko ñore ko loolu mooy jaamu yàlla la yoo xam ne day dëkk de sunna mu ngi tere yàlla yi képp koo xam ne yaa ngi ci nekk dëkk bi rek nekk ca lool xam ne yaa ngi ci gërëm sëñ bi te lu baax rek ngay def tey ëllëg waaye képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bii di si joxe lu la neex te lu neex lu lu te lu ci lool wa yaakaar ne kenn mënul la dara nan dem nan dem ci kanam dëkk bi yàgg na mais yàgg naa mel nii am ñu fi joxe fëttëru waaye mboolem ñu kon dee fëttëru ñu xam dëkk bi xam na ko nit ñi kon nag nan muy nekk ci dëkk bi joxe lu neex xam nañ très bien ndigal rek moo koy ñëw loolu nga di ne ndigal ndigal ndigal ndigal bu ñu wax murid ndigal la am kon nag nañu xaaral ndigal ñi nga xam ne ñooy ci bi itam nan mooy ci fooye baat kilifa nit kilifa am lu baax te nit baat saa boo ko fooyee du ko fooyee fu la neex dugal fu la neex génn dafay yàq nit daax ye bopp baat kilifa crédibilité bu ko moom bu nit bu amul crédibilité baax na lu mu defal da nga am solo te bu nee ba kii fa waxatee nag ñu naan moo ko wax ak ko góob dañ koo taxale te dañ koo bàyyi kon nag nag ñi nga xam ne ñooy njaboot bi nag mooy di dugg ci baatu kilifa di ko di ko jox loolu ndigal ndigal wala di ko taaraloo taaraloo mag la li nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp yoo xam ne lan yi xam nañ ne loolu dafa nekk lu mat wax lu nekk danañ ko kon nag nan mooy fa fooy ba sëriñ bi di ko wax loolu di wax bi interpréter ay waxam loo xam ne duwu ko wala nga du ko ñëwee ko